Ndiaye jërë ngeen jëf ku mën a roddeen ci bul ko wàcc dëkk bi ci ñàkkum ndox la jëm li koy firndéer ak li koy sooke mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi tuyau bu SDE ba ca Lac de Guiers moo toj CGCC di benn entreprise chinois ñoo doon liggéey juum laal fu ñu warut a laal tuyau ba bënn ba tax surpresseur bi jëlee ndox mi foofee di ko indi ndakaaru këf ko doxatul la mu jur nag moo di usine Kër Momar Sarr bi jox ndox lu bari ci askanaw ndakaaru usine ba doxatul na mu ware journal bi nañu ndakaaru ak banlieue fu ñu jaar danañu dund ñàkkum ndox du ci diiwaan yooyu rek lam ndox nar a ñàkk ne muy ca mexe di ca kees ak ca tëngeej askan wa ñoom it nar nañoo dund ñàkkum ndox vox populi dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk waa ndakaaru ñàkkum ndox mi ngi leen di yott lii la journal bi bind ndax tiwo ba leen doon alimenté moo yàqu ma nga yàqoo ca ngaay mexe ci travaux yuñ fa doon def waa SDE yi xam le ne baisse de dina am ba yegg sax ci ñàkkum ndox ci diiwaan yu ci mel ne Louga kees ak ndakaaru a a a manqué ci dëkk musiba la ci askan wi ne benn waay bu tudd Mousse Jambo doon liggéey ci entreprise bu ñu naan Canadian Bottling Company li mu doon def moo di dajale ay bitéeli ndox yu jeex yi yii bitéeli Aquaterra la yii bitéeli Baobab ya ca des bitéeli Kirène bu dajalee bitéeli da leen di raxas ba mu set sol ci ndoxum robine ba mu fees dell mu tëj ko kastare ko di ko jaay ne eau minérale la ndox mu baax la yéen a kaay bi nañu entreprise yu bari ak restaurant yu mag yu nekk fii ci réew mi ndox moomee lañ doon jënd di ko jëfandikoo ndekete du ndox mu baax mu ñu war a naan waa section recherche bu gendarmerie Colobane ñoo ko jàpp jàppati nañu ci réew mi ay faux médicament mu di garab yu bon le quotidien nañu douane bu Fatick ñoo ko jàpp ñoo ngi ko tegee loxo ca Foundiougne commandant Abdou Thiam mi chef subdivision bu douane Fatick moo ko wax démb ci conférence de presse faux médicament yooyee ñu teg loxo la ci ëppoon ay antibiotique la ak i aphrodisiaque ñoo ngi xayma seenu njëg ci benn milliard ak ñeent fukki million ak ñett un milliard 43 millions ministre yi ci gouvernement bu bon Abdallah Dionne bi ku ci toog cib nen du toj suur ko waral moo di président Macky Sall ba mu faluwaate ak léegi waxut ak benn ministre nee na leen ñeel ministre yi nga xam ne dañoo yore ay dossier nañu ma ko gaaw jébbal yéenekaay bi nañu na mu nekkee ca Maroc ba ñi bu ñibbisee moom président Macky juróom benn nit kese lay waxal mu di directeur général bu police chef d'état-major général des armées au commandant de la gendarmerie directeur du trésor délégué général du renseignement national amiral Farba Sarr ak Jean-Maxime Simon Ndiaye secrétaire général de la présidence source a nañu bu weesoo ñi beneen ministre de ngi dégganteeg président de la république dalay nax suba ci àllarba ji na ngir na leen bàyyi bàyyi si du quotidien nañu lu jëm ci gouvernement bu bees bi mu war a taxawal moom président Macky Sall société civile gi ci réew a baax ñi muy dugal ci gouvernement ba mu d nee ci xët mu njëkk yéenekaay bi président ku muy fal di la dugal ci gouvernement bi ci lenn rek la ko war a wekk mu di ak xarañ Sadikh Niass bu rado ne li ñu koy ñaan moom président moo di mu teg fi gouvernement boo xam ne technocrate ya cay nekk ñooy ëpp politiciens ya l'observateur moom it xëy jël yoon wa gouvernement bi war a ñëw ñaata ministre la ñu war a nekk nu ñu war a mel leen war a tànne lii lépp journal bi waxtaan na ci ak i kàngam li ñu ko wax bokk na ci ne Macky Sall na fexe ba buy taxawal gouvernement mu taxawal ci réew mi gouvernement boo xam ne gën koo bari fanweeri ministre ñoo cay nekk tànn leen nag ci compétence ak expérience moom jiit réew mi Macky Sall réew mi quotidien mi ngi ñuy xamal ne bu mbul bañee làmbaay nangu ne investiture bi mu war a def bu fekkee ne opposition bi ci réew mi dañu ko fas yéene du muyu moom Macky Sall invité na ca lu mat fukki njiit réew ak juróom soleil national ñu président bu Amérique di Donald Trump dana ko yónnee ab ne ko délégation bu am doole sax américain yu bari yi war a teewee ndajem investiture bu président Macky Sall yéenekaay bi gisee ko ndàmpaay lu Amérique baaxee Sénégal parti démocratique Sénégal yëngu na billise ko Amadou Diarra maire bu Pikine Nord moo fa nekk nee na Omar Sarr mi Abdoulaye Wade wóolu dénk ko parti démocratique Sénégal Omar Sarr moomee Macky Sall lay liggéeyal Amadou Diarra ne ñun ñëpp xamoon nañ ne Karim Wade mënut a bokk ci élection présidentielle yi banaan da cee doon candidat ko jéem a nañ li mu leen yóbbee mu teg ci ne tey maître Madické Niang bu taxawaloon parti boppam parti démocratique Sénégal ñàkk ma ndax damay fabu demal ko.